di ko teg ci loxo oreille du monde TV di ko ñaan mu tegal ma ko ci loxo bépp senegale bu nekk ci biir ak yi ku ndaw ak ku mag ku góor ak ku jigéen ñoom ñëpp ma di leen wàcc seen wàccuwaay di leen ziyaara te di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi yàlla subhaanahu wa dafa ñu bind dal di wax ne àla lahul xalqu wal amr mu ne maa leen bind te maa leen di digal waaw dox ci ndigalu yàlla loolu moo di jaamu yàlla ndax yàlla soxlawul ku koy jariñ yàlla néewul ba bëgg ku ko bareyal yàlla lottul ba bëgg ku ko jàppale ku ko dimbale yàlla wéetul bëgg ko ko wéttali ñun ñoo ko soxla ba tax na diineem du pour ñun pour du pour moom pour ñun la bon bu nu joxee diineem waruñu am benn excuse pour barke bañ ko bañ ko appliquer loolu moo tax mu ne ad diinu an nasiha diine daal moo di nasiha nasiha moo di sellal annasu موي laabiire موي nit ki boo ko dee jox dara nga jox ko lu set loo xam ne yàlla rek a tax nusxu mooy lem goo xam ni amul benn purit comme or boo xam ni amul dara lu ko rax nit boo ko dee jox dara jox ko loo xam ne yàlla rek a tax xam-xam dafa am solo moo tax lislaam wax ne utlubul ilma walaw fi siin far talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam farata jullit waruta réer ndax téere bi ko yàlla yoon ni la ci jiitu mooy iqra jàngal xam-xam amul dara lu ko gën a tedd ci àdduna ndax xam-xam ci la yàlla tere la doomu aadama ba tax mu tànnaloo ko lu baax ak lu bon jox ko responsabilité yëkkati ko ci kaw lépp lu mu bind tey nag musulman yi jullit yi foo leen fekk ci àdduna bi dafa mel ni ñoo gën a réer dañuy toppe du ñuy jiite xam-xam te li ñu am ci xam-xam kenn amu ko ci àdduna waaw mu mel ni dañoo fàtte seen bopp yonent bi dafay wax ni benn buntu xam-xam benn buntu xam-xam moo gën junney ràkk naafila waaw benn masala moo gën téeméeri ràkk naafila tey son fonkatu du xam-xam fonk tunu xam-xam ba tax damay fàttali lu ma marqué ci maam El Hadj Malick radiallahu taala dafa am benn bés yaayam nekk ci gannaaw kër gi di liggéey di liggéey ba mu yàgg rek mu siggi ci kanam xool ci kanamam gis kuy ñëw ku sori di ñëw mu di ko xool mu nuroog bàyyu mawdo mu di ko xool muy ñëw mu nu di gën a mawdo mu wax ci xelam ne kii day bu bàyyi mawdo doon dund ma ne bàyyi mawdo la wante comme que bàyyi mawdo nekk fii mbon nag mënta nekk kenn ku dul Maodo waaw ba ko xelam joxe loolu dafa daw dugg ci biir kër gi fekk fa ndijaayam alfahima yoro wele ñu ko sëriñ bi mu ne ko naaw mu ne ko dimbali ma Maodo nga nële di ñëw yaakaar na ne xam-xam ba mu seeti woon am na ko dimbali ma nga fexe ba dellool ma ko mu dem jàngi di tekki nag di jooy sëriñ bi génne ba mu génnee xool ci kanamam gis Maodo muy ñëw lu mu ko wax naka yemal fi nga fi nga toll taxawal Maodo taxaw mu dox ba yëgse ci Maodo tàpp tàppal ko ni ko Maodo demal jàngi imaginel lu mel noonu nga dem di seeti say wayjur ñu delloo la ndax seeti xam-xam ndax xam-xam loolu moo tax ma mbokk yi Maodo marqué senegal ci xam-xam moo tax mbokk senegal tey bu ñuy tiitaroo xam-xam war nañu bàyyi xel suñu kilifa yu baax yi nga xamante ne ñoo ñu jiitu woon ñoom ñëpp. xam-xam bi ñu am nii tey bi yore ci seen këru diine yi bi téye sénégal ñu nekk ay jullit lépp nañ ko delloo foofu ci suñu mag ci baax yàlla na yàlla fay jiw këru diine yi waaw ilha maam maam cheikh ahmadou bamba gis ngeen ko la mu wax yaa subaani in xiftum xajalan faqaddimu taalluman ala amali ey yéen waxambaane boo leen bañ boo leen bañee gàcce dal leen ëllëg na jiital xam-xam ci xam-xam ci ci jëf tey kenn defatul loolu waaw tey danoo préféré lëndëm ci leer danoo préféré ak réer ci xam-xam li mooy suñu problème tey Sénégal waaw kilifa diine yi ñoom itam lu ci bari tey toog ci xilaafa moo leen gënal ñu génn génn taalibe yi ci lëndëm dugal leen ci leer te day dal jamono day am ci jamono boo seetee jamono Galileo Galilei église katolik bi doon la meloon ndax kii dafa génn xam-xam xam-xam bi moo di lépp ci xam-xamu àddina pesanteur xam-xam boo xam ne ci musulman yi la njëkk a ci ñoomin saabitub nu qurra ñu njëkk a commencé di découvrir la pesanteur muy ni lépp lu nekk ci kaw day fekki sa suuf waaw teg ci benn xam-xam benn settantal boo xam ni dafa ni ñaari yëf boo leen bàyyee ñuy ñëw ñuy wàcce ci suuf ñoom ñaar ñooy yeggandoo église catholique bi dal di jàpp ne déedéet bi gën a diis mooy njëkk yegg mu ne leen déedéet ñoom ñaar ñëpp ndax li leen di xëcc benn la muy pesanteur Église catholique na ko tuubal mu ne duma tuub kaay leen ma wan leen ñu topp ko mu dem yéeg ci kaw benn montagne téye ci loxo ndeyjooram benn yëf téye ci loxo càmmoñam beneen yëf bàyyi leen ñu daanandoo ci seen kanam ñu yeggandoo suuf ñu xam ne li mu leen wax dëgg la wante lañu def jàppal nañu ko toroxal nañu ko exilé nañu ko ba mu dee lu tax ndax nitu diine yoo xam ni bëgguñu xam-xam bëgguñu ku leen wax lu bees ci àdduna bi bëgguñu ku leen wax lu ñu xamul Serigne Cheikh wax na ko waaw mu ne yenn saa yi nga liggéey ci dara liggéey ci liggéey ci ba mu set boo ko wanee mag ñi rek ñu préféré rek jël jaasi rek caw la ko moo leen gënal ndax li ñu xam la ñu bëggul ku leen ci waxate leneen musiba bii mbokk yi moo dal senegal bépp sénégalais bu may ñaan nga di ma déglu lii moo dal Sénégal sénégalais yi amuñu incompétence sénégalais yi la politique bi nga xamantene ne def nañ ko animosité ku ci nekk tay pare nga cee rey sa morom kenn bëggatul kenn lii problème am sénégalais incompétent wul sénégalais bon ndax fa nu lu bon amu nañu def élection pour défaire Sénégal la du pour yàq Sénégal bi ku ci nekk indi sa candidature te fekk sa candidature valable Il bëgg adina rek waaw say ganar wax say soxla ñak xam-xam moo ñu dal ñak xam-xam moo ñu dal boo ko xam xolal sénégalais bu jang Sénégal ba génn Sénégal dem bitim réew demal nga xool kooku foo ko fekk kilifa lay doon waaw sénégalais bu génn Sénégal dem bitim réew organisme internationaux yi foo ko fa fekk kilifa lay doon njiit lay doon lu ko nekk Sénégal lu le mënul Sénégal bu Sénégal baax bu toggee Sénégal bon bu Sénégal compétent bu bu ñëwee Sénégal nekk incompétent lu tax c'est pas vrai waaw dañuy tuumaalante lay ji alquran waxoon wa ma tafarraqu illa min baadi ma jaahumul ilmu bay baynahum moo ñu dal xam-xam nekkatul pour xettale jaam yi xam-xam tey pour ngànnaay la dañuy sàkku xam-xam ngir ngànnaay ngir lor sa morom ngir toroxal sa morom dettalal sa morom jiitu ko jël alal ji bàyyi ko li moo tax mbokk yi ñu ne politique xeexu bandi la politique mar à crocodile la ku politique fossé du lion la kambu gaynde waaw waaw wala déegu jësig wala bokk xeexu bandi te fekk du xeexu bandi métier bi gën a noobal ci monde bi métier bi gën a sell ci àdduna bi bi gën a bari yool ci àdduna bi métier ki nga xamante ne borom muy njëkk a dugg àjjana métier bii mooy politique waaw sabaatun yu zilluhumullahu fi zilli arshihi yowma la zilla illa zilluh ku mu ci jiital imaamun adil mooy président président de la république bu njëkk moom la yàlla di njëkk iir ci ci keru aras politique ñu jël ko di ko saltel nii di ko tilimal lu tax ñu tilimal ko ñàkk xam-xam suñu sëriñ si dañu soxlatul xam-xam ku jàng ba yaakaar ne xam nga nga arrêté sa xam-xam lii moo lor Sénégal suñu sëriñ si ñoom la yàlla jox diine ji ñoom la yàlla jox làmp yi leeral jàmm yi waruñu taxaw di jàngale mais jàngale itam yenn saa yi am loo xam ne doo ko xam te nit ku mat daf ko war a nangu xoolal suleymaan alayhi salaam picc moo ñëw waaw ne ko inni axattu bi maa lam tuxit bi wa jiituka min sabain bi naba in yaqin inni wajadtu mraatan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna li shamsi min dunillah xoolal ndeysaan picc laa wax picc moo am lu ko naxari picc laa wax moo am lu ko naxari ba mu gisee ay nit yuy jaamu ku dul yàlla tey tey tey tey Sénégal am nañu ay marabu yoo xam ne tey xam nañu ne Sénégal jaamuwuñu yàlla xam nañu ne Sénégal jaamuwuñu yàlla ndax xam nañu ne yoonu yàlla ku ci teguwul jaamuloo yàlla l'islam du julli rek l'islam du julli rek waaw dafa bokk ci li ñu ñu jàngal que ne marabu yi boo leen bëggee laa laabiire bëgg leen fàttali nanga leen fàttali ne yàlla dafa am yoon yoon woowu dañ ko war a sàmm charullahi yoonu yàlla dañ ko war a sàmm moo tax duudu kenn de mbay maa ko dégg ak sumay nopp kérok dama mel ko an ko ànd ak xaala ba ma déggee dëgg googu mu wax ba mu wax ni a tariqatu budda an takuna mabniyatan ala sharia mu firi ko ci olof mu ne tariqa fokk sharia daf ko war a ana ban tariqa sénégal fii boo xam sharia moo ko ana ban tariqa boo xam ne sharia moo ko boot amu fi benn tariqa boo xam sharia boot na loolu moo tax charia mu ngi bëgg a yàqu tarixa mu ngi bëgg a yàqu tarixa mu ngi bëgg a yàqu lu tax ndaxte tarixa bu ko charia bootulee du dem du yóbbu kenn ci yàlla moo tax Sénégal tey Afrique boo ko seetee criminalité bu nekk mu ngi fi ndax charia li ko tax a jóg mooy doomu aadama yi foog ñu tooñante ci wut bu ñuy wut alal ak lu ñu sàngoo ak fu ñu dëkk yàlla jox nu charia nag pour mu régulariser wutu wutukaayu alal yi politique du wutukaayu alal politique defarukaayu nit la te nit nag ki koy defar mooy diine moo tax suñu marabu yi ñoo génn seen loxo ci peuple bi mais nag il faut que itam ñu def attention laïcité moo leen gàllankoor. ba tax ñoom mënuñoo yee peuple bi ci nu ñu war a mel defar peuple bi laïcité moo leen gàllankoor moo tax nit sàkku xam-xam wàññiwul dara ah suñu sëriñ si dañu xamul lan moo di laïcité waaw te bu ñu ko jéemulee xam seeni taalibe dinañu nekk ay yëfar bu yowmal xiyaamee yàlla enquête leen waaw diine bi amul kenn koo xam ne danga nga naan liggéeyal naa yàlla loo xam ne loo xam ne dina ma assurél àjjana ku ko def weddi yàlla waaw suñu sëriñ jàngal nañu ne ko waaw tarkul asbaabi fusuuq wal itimaadu alayha kufrun wa shirk boo sabab lu le yaa ngi tooñ yàlla yaa ngi tooñ sabab wante itam boo sabab boo sukkandikoo ci yëngu yi nga sukkandiku ci li nga def itam juum nga bokkaale foofu lay jóge waaw bu kenn wéeru ci li nga def moo xam lu baax la moo xam lu baaxul la waaw tey nag suñu sëriñ si bëgguñoo am xam-xam pour xettale jaam yi xamuñu laïcité sëriñ si xamuñu lan moo di laïcité te bëgguñu ko xam moo tax seeni taalibe tey ñu def seen ay yéefar ñu toog di seetaan di xaritoo ak ñi lañ def ay yëfam politique bi képp koo fi gis mu nekk ci terrain politique bi may na yàlla ñu ngi may yàlla def nañu ay jullit def leen ay yëfam lii mooy problème bi fi nekk te man exagéré wu ma de yàlla raay laay waxal kenn bëggutu la waxal yàlla ku nekk sa bopp ngay waxal ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ah it bu ñu bu ñu gëmoon yàlla te ragal yàlla yàlla nee na ma ballal leen ay yiw yu bàyyi ko ci suuf ak ci ak ci kaw xéewalu yàlla mu ngi nekk ci topp yàlla ragal yàlla ñu bëgg a weddi yàlla ba noppi nag bëgg yàlla defal ñu xéewal gis ay nit yoo xam ne tubaab bi moo leen formé nga ne kii moo jox alal ne bon la te jox alal na defaat nit ci ma topi politique moy defat nit ñi ba nopi ngay doog defar alal nit moy defar alal alal du defar nit ñu mel ko andatul ak suñu sago andatul ak suñu xel ba ñu amé indépendance ba tay di fal ay yëfër di fal ay yëfër président yi ñu massa gouverner yépp yoonu yëfër lañu def ba nopi ngay xaritoo ak ñoom lii moo ñu dal moo tax mbokk yi damay gis lu ma metti bu ma gisee koo xam ne mu ngi démystifier marabu yi naan marabu yi maanaam tarixa yi tubaab bi moo ko créé c'est pas vrai tarixa yi ñu ngi bàyyi ko fële ci imam Junayd imam jumay Junayd di nekkoon di koo xam ne léppam yàlla la dafa amoon boroom xam-xam yi ulama rabbaani yéen yoo xam ne yàlla rek mooy seen xalaat imaam Junayd di foofu la bokkoon tariqa yi fi nekk yëpp foofu lañu ñu bàyyi ko waaw naka la naka la tubaab bi di créé qadiriya te ba qadir yi dee am fekk tubaab bi génneeguñu sax ci lëndëmi moyen âge ah qadiriya am na ay at bi ay siècle sax bi tiijaan yi ñu laataan ñëw naka la tubaab bi di créé lool pour ngeen xam ni ñun des fois xam-xam dañu ko dul am ba tax na tey bëgg ku la gis ku la ku la dégg be tax na tey ngay réeral askan moo tax yàlla wax ne laa tax suma lay salaka bihi ilma bul wax loo amul xam-xam waaw laïcité moo téye suñu sëriñ si ba tax seeni taalibe ñu nangu ñu def leen ay yëfar te alors que normalement dañu waroon ku am xam-xamu te dañ la waroon woo nga ñëw nga wax leen lan moo de di laïcité wala ñu dëkkul la bokk waaw amul dara loo xam ne tey tubaab bi dina ko def mu jëme ko kanam te su yonent yàlla Muhammad jàngaluñu ko waaw maa farratnaa fil kitaabi min shay tey nag ñu bàyyi yoon yonent yàlla Muhammad li mu ñu indil ci xéwal yëpp ñun dañuy toppa tubaab bi sëriñ si waroon na xeex ak seen taalibe bu leen topp yoonu tubaab bi ñu dem topp tubaab bi mu mel ni la ñu fàtte sëriñ Babacar Si radiyallaahu taala waaw benn bés dafa toog sëriñ bi benn muqaddamam ndeysaan di Maajoor Cissé bu saint wi ñëw toog ak moom Maajoor Cissé mooy nettali mu ne sëriñ Babacar ba ñu demee ba suñu ay bët ñeent mu ne ma Maajoor ma ne ko naam mu ne ma tubaab bi ñëw na fi ba dem mu ne ma di ko duglu mu ne ma wante charia bi meroon mbokk yi lii la ñu soxla tey lii la ñu soxla tey sëriñ soo xam ni charia bi rek moo leen itteel ñu nu bëgg a yépp kenn wootew ci charia kenn wootew ci charia ngeen di leen fal di leen jàppale di leen dàngam ñu jël seeni taalibe def leen ay yéefar sëriñ si lii laa leen di fàttali sëriñ si dañu dimbale taalibe yi dimbale lislaam lislaam dafa bare ay noon sëriñ si wara taxaw xilaafa gi pour dimbale lislaam la laïcité yont yàlla Muhammad la mu defoon ca Madina ak Espagne ak Jérusalem ba musulman yi fatxoo Jérusalem keroog nañu discours ba Seydina Omar lancé keroog loolu mooy laïcité ndaxte bàyyi ko na Madina ñëw fekki si ña fa nekkoon patriote sa dina baax ma nettali leen ko fàttali leen ko mbokk yi waaw ndaxte musulman yi ba ñu ubbee Jérusalem jël ko ci nasaraan yi nasaraan bi dafa ne leen caabi Jérusalem duma leen ko jox lu dul seen chef ndaxte ki ma ki nga xamante ne moom laa war a jox caabi ji gisaguma ko gisuma ko ci yéen waaw gisuma ko ci yéen abu ubayda amir ibnul jarah ñoomin surahbil ak ñooñu àndoon ba jël jérusalem patriarche bi dafa leen gisuma ki ma war a jox caabi ji gisuma ko ci yenn Abu Ubayda yónnee ci Seydina Omar naka ah caabi caabi Jérusalem day laaj nañu ko waay ji wante dafa bañ nee na du ñu ko jox ndax ki mu ko war a jox gisu ko yow xanaa nga ñëw bokk Seydina Omar bàyyi ma Madina jëm jaabiya ci Jérusalem ci Palestine pour ngeen xam ne jullit yi ñoo ñoo libéré Palestine kenn ëpp leen cër ci Palestine ndaxte ba ñu leen doon empire romain ba mu doon coloniser Israël musulman yi ñoo ñëw libere Israël def fa diine diine lislaam pour nga xam ne bon musulman yi ñoo moom Jérusalem bon tey tubaab yi bu ñu bëggee éliminer tey euh, Gaza ak Hamas nga xam ne bon musulman yi seen taxawaay moo des seyd na Omar ba muy ñëw mu ngi ànd ak mbindaanam booyam wante ak lu mu nekk nekk booyam Seydina Omar dafa yéeg ab diir wàcce booy bi yéeg surge bi yéeg dox ba mu yàgg mu wàcce ñu bàyyi gëléem gi mu mu noppalu xool leen bu baax na Omar day yéeg wàcce waaye ji yéeg surga bi yéeg wàcce ñu bàyyi gëléem gi mu dox ab diir ñu dem ba mu yàgg ñu dëkk man ay palaas boo xam ni dafa tooy am ban fekk mbindaan mi fekk kii bi surga bi mooy yéeg Seydina Omar dox ci ban bi ba tànk yi yépp tilim ak ban ndax mbindaan bi cëru mbindaan bi moo jot waxu ko ne wàccal man maa yéeg yow nga dox ci ban bi omar moo dox ci ban bi ba ay tànkam tilim ñu génn ñu génn doog a ak abu ubayda fekk bu ñëw di leen di teeru xam nga lu mu wax omar ne ko omar ñii day tubaab yi empire romain maanaam nasaraan yi dañoo bëgg ak cet te yow say tànk dafa tilim dañu war a dem bërëb nga raxas ko ba noppi nga doog a tegati ki nag Umar mbubb bi nga sol mbubb bi nga sol dafa am nangami gaar yu ci nekk da ko war a changer lu tax ngay indi yére bu mel nii xam nga lan la naa Omar def dafa jël ay suuf di ko ko sëllëx lii ngeen may teeroo yére yére yu rafet yi ngeen may teeroo waaw bu dul woon teg nangam yat yu ma yor dinaa la ko dóor waaw xanaa xamul ne na nun sunu teraanga du dara lu dul lislaam ah kunna qawman adilla fa azzana allah bil islam fa mahma btaxayna al izzata bi xayri al islaami allah ci la ko wax waaw mu ne ko nun aw nit lañu woon yoo xam ne tekkiw nu woon dara yàlla teral nu ak lislaam bi lu nu mën a sàkku te seetew ko lislaam ci toroxte rek la ñuy dox ba ci kanam dajeek patriote bi nguuru nasaraan buur nasaraan bi jóg dal di ne kii la ñu noo waxoon kii la ñu waxoon ne moom lañuy jox caabi lu tax ndax kooku ñu koy xàmmee mooy du war du war gëléem gi du war day dox te mbubb ba mu sol dina am fukki gaar ak juróom kooku la ñu nu wax ne moom la jox caabi pour ngeen xam ne yàlla jiitu na leen bu yàgg yàlla wax nag nasaraan yi ba mu laata wax ak jullit guddi keroog Seydina Omar di jooy di jooy di jooy di jooy ñu ni ko Seydina Omar lan ngay jooy bu ñu leen damaa xam ne yàlla dina leen ubbil adduna bi waaw bool bu amee ngeen fàttante lii moo ngi dal te ku ci nekk fàtte nga sa morom fàtte nga ne jullit nga amal affaire te bu loolu amee rek yàlla fàtte moo tax musulman yi tey yàlla da leen fàtte bu ñu fàttee lislaam la ñu yàlla fàtte moo tax tey musulman yi ñoo gën a ñaaw àdduna koo xam ne yaa war a jiite àdduna bi tey yaa gën a des gannaaw ñuy def ay débat limaada taxallafal muslimun lenn rek la dañoo bàyyi lislaam lu tax ñu bàyyi lislaam ñu ne laïcité moo tax bon jar na pour ñu xam lan mooy laïcité ah jar na ko Seydina Omar boobu keroog ba gaa ñi bëggee feetu kontaan ndaxte ubbi nañu Jérusalem libéré nañu euh, Jérusalem Seydina Omar na loolu ñu bëgg ñu ne ko dañu bëgg lenn rek la ñu bëgg mooy nga waxal ñu Bilaal mu nodd xool leen mbokk yi waxal leen ñu Bilaal mu nodd ndaxte ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnee àddina ba tey Bilaal nangootu la nodd dañu bëgg rek mu noddal ñu tey lu ñu def ñu dem ci Seydina Omar Seydina Omar dem ci Bilal naka Bilal jullit yi day sa mbokki jullit yi day dañu bëgg a te nga noddal leen waaw Bilal naka d'accord xoolal mbokk yi ñi li ñuy tiitaru diine l'islam la ñuy tiitaru ba ñu taxawee ba Seydina Bilal yëkkati baatam ba mu yëgsee ci ashhadu anna muhammad rasulullah mënatu la dem ndax jooy saxaaba yépp di jooy ndax bëgg bu ñu bëggoon Seydina Muhammad sa sallam te tànk yi mu kii ko toppoon moo tax tey ñu libéré tey li nga xamante ne moo di Jérusalem waaw empire romain moo doon coloniser Jérusalem waaw depuis ay siècle cinq cent quatre-vingt-seize avant Jésus-Christ empire romain ñoo doon coloniser Israël yonent yàlla issaa bi ko yàlla yónnee ci colonisation la ko yàlla yoon woon motax tax mu di leen dikk ne len yonte yàlla Muhammad dina ñëw libérer len libération boobu mo nekkon ni tay mbokk islam moy libérer monde moon waxuma la libérer Sénégal suñu sëriñ ci lima len di fatali moy nañu dimbale talibé yi islam mo ñuy libérer mais pour ñu dellu ci l'islam il faut que ñu xam lan moy laïcité bu ñu xamulé laïcité rek du ñu libéré Sénégal ndax dinañu bàyyi tubab yi ñi tubab yi formé ñu continuer di coloniser Sénégal ok lii laa doon fàttali nañu dellu ci lislaam suñu sëriñ si fu ñu mën a toll maa ngi leen di ñaan nañu dimbale taalibe yi libéré taalibe yi élection yi di dëkkmal bu ñu wax dara lu dul charia bu ñu ci xool kenn nañ ci xool yàlla ak yonte yàlla Muhammad bi di jox yoon tegal ñu charia charia mooy assurer laïcité ñu bàyyi Sénégalais ku ci nekk di tuumaal sa morom damay fàttaliku jamono ji ku ñu tëdd Omar ñu ngi ko tëj ci biir kaso bi lu tax ñu tëj ko ay tiijaan international tiijaan ñoo tëj Omar Sall lu tax ñu tëj ko ñàkk xam laïcité donc moo tax ñu tëj ko ñàkk xam laïcité musulman yi seen ak réer gu ñu réer. ñàkk a laaj laïcité tooñ yàlla bi ñu tooñ yàlla moo tax ñu Umar Sall juum ñu tëj ko te ñun ñoo tooñ yàlla waaw li Serigne Cheikh doon wax koo jottali yaa ko tooñ lii mooy am tey Umar Sall dafa juum ndax pas-pas kenn du ko laal laïcité moo ne pas-pas kenn du ko laal ndax diine moo am ñaari wàll wàll boo xam ni bokkuloo ko ak sa morom. walla woowu boo ko jéemee critiquer dafa mel ni yow yaa ngi koy xañ liberté bu ko yàlla may tariqa kenn du ko kenn du ko critiquer mais lii nga xamante ne mooy loi bi moom ngeen bokk côté boobu nag ku ci nekk am nga droit nga indi ci sa xalaat bu ñu ko violé te loolu mooy lan mooy sharia te ñun amuñu sharia moom ñun ñëpp toj nañ suñu borom ba noppi di jàppante di tëjante même chose moo am ci Bassirou Diomaye fay Bassirou Diomaye fay yaa ngi dégg ku mel ni may ku mel ni euh, benn journaliste ah ah ma xaw a nan ah nan kooku mu ngi wax ni mu ngi wax ni Bassirou Diomaye Faye salafiste la xool leen ma ah, waaw lan moo tax nit ki am droit nekk ci tarixa te nit ki amul droit nekk salafiste te lépp ay tendance islam la ni nit ki amee droit nekk nekk maliki la nit ki amee droit nekk xanbali wala xanafi noonu tam la nit ki am droit nekk salafi tendance u l'islam la la muy xeeñtu mooy l'islaamu yonti yàlla mu Muhammad moom laa bëgg ah wante l'islam boobu nag mayu la nga attaqué pas-pasu keneen nii la yàlla maye nga tànn benn noonu la yàlla maye keneen mu tànn beneen ah, kenn amul droit di woo sa morom ci sa pas-pas dans un état laïque ndax état laïque mooy état boo xam ne ñëpp dañuy nangu seen morom pour ngeen dund ci jàmm loolu moo tax ñu def ko ñun tey ñu ne laïcité mooy wedd yàlla diina amul suñu sëriñ si toog di seetaan loolu waaw moom sëriñ si dañu mel ni ku weddi li ku weddi ah li leen yàlla jox sëriñ si nañu dimbalee taalibe ñu laaj charia laaj yoonu yàlla libérer Sénégal une bonne fois toute libérer adduna bi yi africains yi ñoo gën a res gannaaw ci monde bi lu tax ndax suñu service yi ñoo taxawatul seen seen taxawatul seen taxawaay ab jullit yoonu yàlla rek boo nekk ko defalee instrumentalisation de la justice moo fii am Macky Sall gis ngeen ni mu nekk di ko def doomi Sénégal yëpp dugal na leen ci prison makki Sall doomi Sénégal yëpp dugal na leen ci prison lu tax ndax makki Sall machine électorale la saa yu élection jotee. ni muy gagné élection moy day seet candidat bo xamné ragal nako ko mu éliminer ko lolou la Macky Sall di def la ko commencé ci Karim Wade ci la manipuler justice bi pour fexé rek na condamné Karim Wade élection euh, législative ba muy ñëw itam mu attaqué Khalifa Sall présidentiel di dëkk man moo attaqué Ousmane Sonko. lii la Macky Sall di def jëf-jëf ju gën a ñaaw lii ci àdduna bi justice xam ne sénégalais yi ñoo ko moom nga dikk jël di ci éliminer ay candidats moo tax durée durée mandat yépp yépp ay procès la procès yoo xam ne benn du ci dëgg marabu yi xam ne lii xam nañu ko ñu noppi ci lan ñu ne ndaxte mara bu du def politique marabu du def politique dëgg la marabu du def politique wante am na droit wax ci politique. ñu bari na ràññeew ñu loolu marabu li tax du def politique mooy marabu ci boppam ab ab ab seedekat la ab témoin ab témoin la te mën la témoin ak témoigner ab taalibeem ak taalibe keneen comme ni nga xamante ne ab professeur mënta corriger épreuve élève am ak élève keneen mënu ko loolu rek moo tax marabu du def politique wante marabu yi nag bu ñu tooñee dëkk bi dañuy dañuy intervenir Serigne Fallou Mbacké radiyallahu taala anhu war na otoom dugg ba kër sengoor palete na ko Senghor génnal ma Serigne Cheikh tey suñu marabu yi tey kenn waxatul loolu kenn faaleetul ñu ngi jàpp candidat yi képp koo xam ne da nga fas yéene libéré Sénégal ñu jàpp la tëj dañ ca bëri kaso waaw surtout nag tànn na ci Ousmane Sonko dissoudre de am ku taxaw tey ñu génn la dugal di dugal ci bëri kaso bi tey ñaata tey prisonnier tey politique. li am Sénégal tey amatul fenn ci monde bi tey suñu mara buy toog di seetaan loolu wa axir daawan alhamdulillahi rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu